la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim alhamdulillahi qabla kulli ahadin walhamdulillahi ba'da kulli ahadin walhamdulillahi ala kulli halin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa man walahu adada ma ta'lamuhu من بدأ الأمر إلى منتهاه وعلى آله وأصحابه بكرة وأسيلة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. barakallahu ah xanaa rek di nuyu ñi fi teew ñëpp. ñu nu mën a jaar ci seen tur ak ñu nu mënta jaar ci seen tur di teg nuyoo bi ci loxo Adja Ndeye Fatou Sakho yàlla na ko ko yàlla defal borom këram di ko jaajëfal ci jëf ju sell ji nga xam ni jagleel na ko daara Adja Binta Thiaw te soxna na Fall jiite ko ci dundu soxna Zeynab la amoon xalaatu bisu jàppale daara ji soxna si nangul ko ko ci digalu kilifaam Sëriñ Samba Sarr mu def ko benn at yàlla dogal laata muy dellu si mu wuy ji boromam tabaraka taala yàlla na ko yàlla yërëm mu bokkoon te ña sopp Zeynab ci dundam jëf-jëf foofu lay yem waaye soppante ci yàlla rekk wóor ndax amul fu mu yem soxna si tey ma nga ca kërum dëgg ga waaye bis bi mi ngi ko conservé ba tey di ko amal ngir yàlla daara ji ngir yàlla ak alquran ngir yàlla ak jàppale ndongo daara ya fa nekk te bari nañu teew fii te jataay bu njëkk ba teewoon nanu fa ñooñu tamit bu doon ne soxna day dem moo taxoon ñuy teew ba noonu dootuñu teewati bu doon jëmmu ña waaye cofeelu ngir yàlla loolu moom du dog moo waral buñ ko defoon fii ak cent ans ñu fekkee ko dañuy woy di teew ànd boobu nag mooy dugg ci almutahabuna fillah yàlla ñu ci yàlla boole ñu soppante ci yàlla ba nga xam ne ëllëg yomal xiyaam suñu borom da keral bis bi nga xam ne ker amu fa dudul keram yàlla di yàlla boole ca ñooy nuyu yi tamit borom këram ak ay woy biram ak mbokkam yëpp di sant di leen gërëm ndax bu ko ndey faatu saako bëggoon borom këram lànk ko du ànd bu ko bëggoon ay woy juram lànk ko du ànd bu ko bëggoon ay mbokkam jàppale ko ci du ànd waaye su àntoo wolof dafa wax ne feccum liir bu neexee day jaate ca wàkk ya kon ay mbokk ci day faatu saama borom këram yéen it jërë ngeen jëf di siyaara ki jiite soxna soppey soxna Zeyna Faali mu jaaree ci bunt bi muy ajaa maam Faatu Mbeng yal na yàlla ràbbal kaala gi yàlla ba mu doon sa mujjum aj yàlla nga wàll tamit kaala soppe yëpp ñu góor ak ñu soppe yi du ngeen wax wala bëggu leen dem Màkka ci biir soppe yi nag oustaz yi jiitu ci oustaz Alba déwén yàlla na dem màgg waaye dama ñëpp waxal amin waay oustaz Mouhamad jàppale ma ci ñaan la sharika laka labayk inna alhamda wa nicmata la sharika lak di ko nuyu moom Moussa Alpha di ko ziyaara di ko wàccee wàccuwaayam di nuyu di ziyaara maître ma soxna tan suñu woyjur suñu soppe nekk soppe soxna day na boo xam ni ñëpp ko xamoon digganteem ak soxna day na faal maître ma soxna yàlla la yàlla fay yow ndax soxna day na seede na ci dundam ñu dégg ne yaa ko jëkk may million loolu wax na ko àdduna bépp déggu da koy may ak taalibe million séenuwoo ci sa dem gërëm ak fuugare mais yàlla moo tax nga def yàlla moomu tax nga def jëf jooju yàlla la yàlla fay Oustaz Mouhamed ñu ngi ziyaara bi na wàcce sa wàccuwaay di ziyaara Oustaz Saïd Diallo di ziyaara Mère ziyaara bu baax di la wàccee sa wàccuwaay maa ngi bëggoon nag ah waaw xaw naa bëgg a dee di ok bii kay li muy wax a gën a neex a dégg ñu ngi lay wàccee sa wàccuwaay sa kolle rek Zeynab ngay jokk ba fii mu toll yàlla la yàlla fay di nuyu Adja Liwis moog maire Thiama it déwén yàlla nañ bokk ci délégation bi naan Liwis moom mu demee màkk danañ gis Adja bu gàtt lool waaw mu baax ma sama doom mu bàjjal la ñu ziyaara ko bu baax ziyaara ñi ci kaw ñëpp ñi ci gis ak ñi ñu gisul ñi ñu xam xamul sa saxin ñu ngi lay ziyaara taalibe sëñ Touba ñu ngi lay ziyaara di la wàccee sa wàccuwaay di ziyaara waa daara soxna Zeynab yëpp moo xam ñi leen di jàngal ñi leen di encadrer la donga yi ñëpp yàlla yàlla fay leen yiw soxna Awa ñu ngi lay ziyaara nga tegal ma nuyoo bi ci sa mag yëpp ak ca Baye Samba tabaarakallaahu ah ñu baal ma rek ma tënk foofu nuyoo yi ndax bu ñu ko toppee du ñu fi jóg ba li ñu bëgg waxtaanee du ñu ko matal Oustaz Alpha wax na léegi thème bi moom ngeen gisoon ci quartier yi. muy crise des valeurs ci l'islam la ñuy waxtaane jikko yéenu amoon wala sax ba tey yéenu am te am ak jagadi gu ci dugg muy adimatul axlaaq nga xam ne ni mu amee crise ci wàllu économique am crise ci wàllu politique noonu la amee crise tamit ci jikko yi te crise su jikko yi mooy indi crise yooyu yëpp bu ji jikko yi amee crise économie bi dafay am crise politique bi am crise diine ji sax am crise waaye bu jikko yi jagoon li ñuy tudd ci wàllu économique ci loxo nit ñi la nekk li ñuy tudd ci wàllu politique ay nit a koy doxal kon bu jikko yu jagoon yooyu benn du ci jagati waaye jikko yu jagatu yi mooy wàll lépp jagati ba tax na bindkat yi yàgg a bind di yittewoo yee nit ñi ci ñu jagal seen jikko ak mooy tëndikuloo nit ñi jikko yu jagati jikko dañuy wax ne li ñu jublu ci jikko bu ñu ko waxee mooy alqiyama awil مثل المحترمة والمستقرة في الفطر السليمة التي فطر الله عليها الإنسان وكرمها بها وقررتها الشرائع السماوية وهي التحلي بكل الفضائل wa tajallubu kulli razaabi bu nu waxee jikko rawatina ñu boole ci ju rafet mooy liy sax ci nit ki nga xam ne bi ko yàlla bindee noonu la ko bindee bi ko dara raxagul kenn ku nekk bi nga juddoo indaale woo jikko ju ña mais ñëpp dañoo juddu indaale jikko yu rafet moom la sallallahu alayhi wa sallam wax ni kullu mawludin yuladu ala alfitra fitra boobu nag jikko ju rafet la ëmb ba nga xam ne amul kenn ku ji judduwaale jikko ju ñaaw jikko ju rafet loolu jooju nit ki judduwaale moom la ko yàlla bàkkee ne wa laqad karramna bani aadama nun yàlla ñoo teral doomu aadama teraanga jim la defal bi ci gën a rëy bi mu la defee nit mooy bi ngay ñëw ci àdduna dafa jël ay qualité boole la ak moom nga xam ne danga nga fees dell ak mbaax waaye daray lu safaanu nekkul ci yow. diine yi wàcc bàyyi ko asamaan it dafa ñëw di dëgëral jikko yu baax yu yàlla mooñaaleeg doomu aadama muy ñaaxaate tout le temps ci nit ki nay sol. lépp luy tax mu am ngëneel ak tedd nga waaye simmi mbubam lépp luy xeetu mbon ak ay rëcc-rëcc ak luy tax nit ñi sib la mbub moomu noonu leen diine ne la simi ko te sol mbubum mbaax mbubum yiw mbubum njulliti